waaye it wane woon nañ ne lépp looy jëriñoo yàlla moo koy joxe te joxe na ko ba pare lépp luy lor ci yow yàlla koy joxe te joxe na ko ba pare li des rek mooy nga nangul ko di bàyyi xel nag lam bëgg feeñal ci mbir yi saa su nekk dégg nga te jéem a daw jëm ci moom nekk ci lam la nekk loo rek waaye mbir àddina yàlla pare na ci jàngoon nañu ne wàllum xamal ana na naka ndimbal yàlla maa sabri muy ànd ak muñ ndimbal yàlla muñ la ànd ak wa na faraja na yër yër mooy bunt boo jaar ba génn ci xat-xat maal kër bi mu ngi ànd ak njàqare wa na maal usri naka ànd naag jafe-jafe yusran yomb-yomb kon démb jàngoon nañ ne mbir mi balaa neex foo mu naqari dégg nga may dafay ànd ak nattu xadis bii moo koy tegtal moo tax mm, ñoom xikmatu daan nañu wax naan borom xikam yi loo commencé mu métti rek am ci yaakaar daa nañ wax loolu waaye loo amul gàllankoor amoo ci benn jafe-jafe rek dafa baaxut mais bu baaxee rek nga gis ci ay natt façon natt bu nekk nag waaye ni natt ba toll noonu la may ga toll loolu jàngoon nañ ko ci gannaaw ci bunta muñ inna azamal jazaa'i ma azamil balaa'i natt yu màgg yi ñoo ànd ak fay yu màgg yi bu dee yàlla natt nattu màgg rek nar na laa may may bu rëy bu fekkee nattu ba rëyul nag <clears throat> may ko du <clears throat> kon mbiri du neex araago ñeenteel waan anas im nañ ci anas radi yàlla na gëm allah yàlla ci moom xaala mu ne innakum naka yéen la taamaloona da ngeen di def amaaren ay jëf hiya moom adaqu moo gën a sew fi ayunikum seen bët mina shaari ci karaw hadis bi mu hadis ñeenteel bi ci bunt bi di hadis juróom fukk benn fukk ak ñett anas ne yéen da ngeen di def ay mbir yoo xam ne tuuti lool ci seeni bët ba moo gën a tuuti karaw te kun naa nekkoon na ñun nawduha di ko konte ala ahdi rasulillahi si jamono yonent yàlla bi sallallahu alayhi meneen mu bokk ci bakkaar yi alage al mubiqaat rawaatoon ak al buxaari waxaala woon almubiqaatu mooy almuhlikaatu bakkaar yi alagi anas nee na radiallahu anhu ardaaw yéen a ngi def ay jëf yoo xam ne bakkaar la waaye na ngeen koo tuuti lool jàpp ne du dara te fekk ñun ci jamono yonent bi bakkaar yooyu ci yuy xalgaati lañ ko booloon ci yuy alagi bu fekkee jamono anas moo meloon nii suñ jamono ji nu mu a saxaaba yi daan nañ dund am na mbir yoo xam ne ñoom pour ñoom lii ku ne xalku rek moo koy def anas dund na dund dund ba gis gaañ yi di def yu mel noonu jàpp na defuñ dara mooy war na jamono ji bari na lu nit ñi aayalut fekk lu aay dëgg dëgg la lu garaaw a garaaw la kon dee leen ko bàyyi xel moo tax bu leen nattee ci jëf jë bëri gi mu yombal gi ko nit ñi yombal ak oyofal gañ ko oyofal dee leen nattee ci xadis yi ni jàppee lii nan la ci yonentu wax fan la ko teg bokk na ci nga xam ni tey nit ñaa ko yombal yombal te mu bon lool mooy leb banque xam ngeen ne léegi kenn aayaltu mm-hmm. waaye riba yàlla takk na ci xaalis bu ngeen demee ci hadis yi ak sunu yoon dangeen fekk yàlla takk ci xare bu ngeen ñëwee ci jamono ji nag c'est pas grave noonu ngeen gis parce que da ngeen gis ay kilifa sax di ko def waaye taxul mu baax ndax laa yastawi alxabiisu wa tayibu walaw ajabaka kasratul xabiis lu baax ak lu bon du njëm di lu bon li bari na ba la bokk na ci lu ba jégg doyo bokk na ci luñ yombal si jamono ji te muy li halage mooy di falee ci diine askan di woy maamam kon mooy kilifa ga maam bi ñu wax ne moo tax nga am daraja yow diw mii maam boobu lu ko may daraja ñu ne góor am xam-xam di ko jëfee di jaamu yàlla ñu ne yow am nga xam-xam boobu yaa ngi koy jëfee ñu ne déedéet kon koy doo dara ndax li tax a nekk sa maam dara moo nekk ci keneen kële sa maam du askan wu baax mu bokk moo tax mu nekk dara dara waaye la nekkoon ci moom ci xam-xam ak njub xam-xam ba mu rawee nit ñi ak góor-góorlu ci yàlla looloo tax mu nekk dara kon yow bu la keneen rawee ci xam-xam ak njub moo la gën a foor hmm? bu fekkee sa maam da nga ne maam dafa baaxoon rek moo tax mu baax di la topp rek fu da dem ba yegg si maam joo xam du dara maam jooju bu nekkul dara kon yow sa maam jooju ngi bëgg réew dara parce que askan wu baax mooy tax nekk dara te moom maam jooju bokku ci askan wu baax kon moom du dara noonu lay demee réew booy xool cosaani mbaax daal la gis ne ci xam-xam la ak jëf waaye nekkul ci askan hmm? bu fekkee nag da ne yàlla mën naa tànn waliyoom bu ko neex dëgg la mën naa nekk yàlla mën naa tànn waliyoom bu ko neex waaye ku la xamal yow yàlla laa tànn ci kaw nit ñi ñu dem ba àllaaxira rek fii ci àdduna ñu lu mën a xam mooy lu feeñ la ñuy àtte képp xam-xam gën a tegu ci yoon wa kooku mooy mooy njiit bokk na nag ci musiba yi ci jamono ji mooy bàyyi dee na doom jee toog di la jàngut mbiru diine ñu di ko dondante comme mbiri àdduna mu ngi oyof lool ci bëtu nit ñi waaye ci musiba yu mag yi la bokk ndax bokk na ci biddaa yi ñëpp dëppoo bàyyi na ko si tëb nag ci biddaa yu xaraam yi la bokk. yu xaraam yi mooy donnante ci turu diine ci mbiri àddina yi doomi docteur du tax mukk ñu jox ko suñu waaye mbiri diine moom nit ñi loo mën a wax wax sa bàyyi diw rek ci lañ lay joxe addiye ci lañ lay màkkalee ci ngay defee loola neex ñu naan hee dafa leen nànk ñi ay sëriñ lañ de nank mooy dem la wax kay tegu na ci alquran sunna la ñu xool wala tegu ci rek bu ci teguwul bu kenn topp mm-hmm. yooyu ci musibaay jamono la bokk bokk na ci musibaay jamono yi ni ñu yombal ku nekk ñu may wax lu ko neex boo amee xaalis rek di waaja maanaam sos bu gën a rëy boo ko sosoon boo amee doole xam xalal kenn du la wax dara bal sax au contraire dañ lay tagg xam nga loolu mooy dimbale la tagg ku bon moom mooy dimbale ko rek loolu ci musiba yu mag yi la bokk waaye la ngeen xamoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy ne daawuñ def lu ñaaw ci kanamam mukk mu di ci noppi léegi nag borom xam yi ñaaw yi yëpp dañ ciy noppi rawatina bu jugee ci borom doole hmm? nga bokk na ci musiba yi xew léegi mooy ñàkk julli mbooloo saxaaba yi yooyu yàpp nga naa fekk rek mooy ñàkk moo julli moom kenn ci jamono jooju waaye léegi loolu dara ci jamono ji bëri na lool jàkka ji boo fa demee ñaari sàppi ñetti sàppi nga wéegi xanaa ajjuma bokk na ci musiba yi di liggéey ba ngoon jot nga door a ñëw këpp këppal sa waxtu yépp jàpp na defoo dara bokk na ci musiba yi jigéen ñi nga xam ne yëre yu bon lañu sol di génn ci mbedd mi ñooñu yonentu tuddoon na leen sax sallallahu alayhi wa ne gisul leen waaye safar lañ jëm mooy kaasiyaatun aariyaat jigéen ñoo xam ne seen armoire yaa ngi fees dell ak yére waaye buñ solee mu xar xappatiku mel ni amuñ yére yaram yëpp di feeñ ci bitti te kenn du ci wax dara nag te kat dañu nekk ci kër gu nekk kër gu baax gu nekk ñu ngi fa sol daggit boo ko bëggee wàññi da ngaa compliqué hmm? loolu ci musibaay jamono la bokk waa baa xam ngeen ne fi mu nekk nii bu ab jigéen boo amoon ab soxna moom bopp bi feeñ rek nga nar koo kaas ñu yow moom da ngaa compliqué yow da ëppal yow yow moom wax dëgg yàlla da ngaa compliqué da ngaa naqaree nekkal ci lan ci muural sa bopp bi sa awra yi feeñ nëbbu ko ñu ne yaa ngi bëgg a tas àdduna da ngaa naqadee nekkal dangaa ngaa compliqué da ngaa naqadi deret ana la mooy neex deret kon yooyu ci musibaay jamono la xew jigéen ñi ni ñuy comportoo bokk na ci musibaay jamono imaam yi nekk ci kaw min bar xamuñ dara bu jàngi alquran yàq nga bëgg di bëgg a sa nopp yi bu ñu waxee rek nga xam ne ñii jànguñ dañooy ñooy jiite ndax lan ndax ñooy borom daara ca koñ ba wala boog seen maama sañcoon koñ ba wala ñooy boroom alal ya loolu fu ñu ko teg teguñ ko ci diine bokk na ci musiba yi police yi wàcc si mbedd mi di dóor nit ñi léegi-léegi ñu nit ñi te teguñ ko ci dara yonent bi waxoon na ñi nga xam ne ñu yore yar di duma teguñ ko ci dëgg ñooñu safar lañ jëm waaye gisuma leen yëpp ci musibaay jamono la bokk demit nag boo doon compter lu jeex kon Anas ci jamono saxaaba bi yonent dafa gis gars yi def ay mbir mu ne yéen ngi def loo xam ne nii moo gën a sew karaw seen bët lu tuuti la seen bët pour yéen du dara waaye ñun de dañ koo boole woon. kon su ko defee mu ne da def ay mbir yoo xam ne nii moo gën a sew seen bët yi karaw lu tuuti la ci yéen waaye ñun dañ koo jàppe woon ci muubi xaat yee xale gi loolu ak fees ci jamono. jamono ji mu bi xaar rek ngeen fii ci bëti nit moo tax xadis bii daf leen jàngal ne bu leen nattee nit ñi def ak la nit ñiy wax bu mu nekk seen nattukaay seen nattukaay na nekk njubam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam rawaa al buxaari wal mu bi xaar woon al mu mooy al muhlikaat yi alage alxaamis xadis juróomeel an abi hurayratu radi yàlla na gërëm allah yàlla na ci moom an nabi mu jee ci yonent bi salli an dox allah yàlla na ci moom mosam dor mosa xaala mu ne inna laa naka yàlla taala kaw ne yaxaaru day fiir yàlla day fiir wa xayratullahi fiiram yàlla taala kawe na an yaatee mooy mu dikkee almar u nit ki maa la nga xam ne xarama xaraamal na ko allah yàlla alay ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day fiir nu yàlla di fiiree mooy wéy fiir ci nit di def lu mu xaraamal léegi nag bu ngeen bëggee dégg xaalis bi da ngeen xool ku fiir ni muy ku fiir xool leen ni muy ci misaal ku amoon soxna fiir bu soxnaam génnee yeel ba laa wax waxuma kii yeel ba ci bitti nit ñi di ko gis ci saa si moom mere na soxna si te dana ko teg ay daan yoo xam ni dana tax ba ëllëg du defaat yi kon yow sooy def lu yàlla xaraamal yàlla mere na la wàcc na mbugal sa kaw ngir lan ngir bul dellooti ci yu mel nii hmm? ku am soxna fiir yow nga dem wéet ak soxna si yéen ñaar rek bu la gisee yow moom ci sensé contourné la yow dootoo amati cër ci xolam borom bi subhanahu wa taala boo defee bakkaar yi dootoo amati maqaama ci péem ba dootoo teddati fa yàlla du la tegati fen yàlla daf lay dàq daf lay sori parce que nit kuy jëflanteeg sa njaboot loo bëggul yow mu fiir kooku daf lay sori mm. dootu la neexati waaye nit kuy jëflanteeg yàlla ndef yu xaraam yi tey sori yàlla yàlla du ko bëggati hmm? waaye fiir gi yàlla gën a fiir nag mooy mu gis jaamam bu góor muy njaalo wala jaamam bu jigéen muy njaalo moom la xadis boo ma ma min ahadin axyaru min allahi min an yazni min an yara abdahu yazni aw yara amatahu tazni kenn gënul fiir yàlla ci buy gis jaamam bu góor di njaalo wala jaamam bu jigéen di njaalo moo tax ku nekk war a bañ njaalo jaamu yàlla góor bu góor buy njaalo foofu la yàlla di gën a fiire fiiraangeem fa lay gën a feeñe maanaam fa lay gën a meree jaam bi fa la koy gën a jëppee wala bu jigéen dem di njaalo kooku yàlla fiir lool yàlla dafa fiir ci def lu xaraam waaye fa mu gën a fiire nag mooy njaalo hmm? maanaam kon bàkkaar yi ni mu toll rek na la fii yàlla di feeñee maanaam mbugal mi wàcce sa kaw noonu lay degré bi di toll bàkkaaram yàlla dafa bokk ci gën a bon moo tax degré mbugalam dafa rëy xool leen saadu moom moom ba mu waxee ne bu fekkoon jabaram muy def lu xaraam loolu lu muy def mooy dafay góor goog da koy rey si moom kon fii raa nga nekk réagir bi mooy def lu def lu garaaw man ngaa def sa ay rek te yàlla ko gën a fiir kon da ngeen imaginer nit bu fekkoon ne dafa am soxna mu njaaloo ngeen xool nan lay réagir hmm. kooku kooku moom da koy fase si sensé bu dee nit ku fiiraangeem dafa toll si degré bu mag bàyyi na ko te dootu jokkoo teg moom bay laayo mi diin te dootu ko tegati fen ngeen déggee si ne kon njaaloo ku ko def yàlla dagg na da ci péem simmi na gëm yàlla ci yow ndax dana jokkoo teg ndéet nag kooku beneen affaire la moom la yonent wax jaam buy njaaloo gëm yàlla yàlla daf koy simmi ci moom fiiraangeem moo tax du ko bàyyi sax gëm yàlla laa euh, dégg nga laa yazni azani hina yazni wa huwa mu'min njaalokat demal ba muy njaaloo nekkatul ku gëm ndax bopp gëm yàlla am yàlla rocc na ko bu yàgg nga xool nag ndax dana ko delloo am déet waxu si dara waaw nit bu njaaloo ak sa njaboot kooku sori na la dootu la jege te balaa danga koy jëppi ba faw waaye tamit jaam buy def yenn yu xaraam yi dafay sori yàlla yàlla jëppi ko ba faw kon yàlla day fiir fiiraange ngeen def lim xaraam nit ku baax day fiir fiiraangeeg ku baax nag ñaari xaaji wala fiiraangeeg nit nit koo gisul ci moom benn safaan deful lenn lu lënt deful lenn lu yàlla aaye yow nga taxaw ngeen danga koy fiire nga taxaw di jot ci moom lu ñaaw yow moom da bon yow yaa bon waaye moom bonul parce que ma defut dara waxut jëfut defut lenn lu yàlla xaraamal kooku loo ko fiire am loo amee ci moom njort bu ñaaw bu àddina yëpp bonoon tamit nit koo gis ci mbon moom mënoo njort ci moom lu ñaaw nit daal moom bu ko jàppee nit ñi parce que nit ñi bokkul benn nit ñi ñoo gàtt moom moom mu njool wala ñu xees moom mu ñuul maanaam daal foo mu am lu mu wuteeg nit ñi hmm. noonu la wuteeg ñoom mel diw waa ji moom it noonu lay def hmm. ah bi kat léegi kat ku yaa ngi nangam waxuñ dëgg de am na xam ne defuñ dara léeg-léeg nga dégg ko ku yeewul ngi boxam waxuñ dëgg de na ñoo xam ne yeewuñ hmm. na nit ñi bokkuñ kon jamono yàqu nit ñi def lu bon du tax nga joxañ ku nekk mu ngi bon firaangi googu firaangi bu bon nit ki def lu yàlla xaraamal kooku mënatoo ko wóolu ki ngay wóolu mooy kuy def la yàlla daganal waaye man la diw diwee tag jigéen ñàkk jom rek kooku jot na nga fiire ko parce que bu dee bu xeewu na it jamono boobu dafa réer la muy def it fa mu jëm baaxul ndax lu yàlla xaraamal moom bàyyi rek ku ñemee def lu ndaw bu yàggee mu def lu mag kanaa xamu bàkkaar ndaw yi mooy yóbbee nit ci bàkkaar mag yi moo tax góor du mbal yi di wax ak jigéen wax ju bari dafay wàccee garaatam te day taxit ñu jéppi ko góor du weet ak jigéen ak jigéen ju mën a doon ndax loolu dafa xaraam yàlla bëgg ko waaw fii nag bokk na ci mu leen wax bàkkaar yu rëy yi nit ñu oyofal ko mooy da nit kuy céetale ay xaritam di akolaat jabaram fu ñu ko teg hmm? wala soxna si am problème dem wéet ak xaritu xaritu jëkkëram moom moom ñaar kese ñuy toog maanaam da koy expliquer problème nii la fa demee ak naa la fa demee naa la fa demee foog nga ne loolu jàmm la. kenn la lislaam maye loolu boo ko kaasee na àddina tukki ba tax jamono ji ñuy dund jamono ji naq de dund la li yonent waxoon ku si jàpp ci diine da mel ni ku téye si xalu safara hmm. moo fi nekk ndax boo bëggee rek la sa njaboot sax ñu tegu ci diine sax ñëpp la. waaye nag mbaax dafa ànd ak yedd moo tax ñu baax ñi yàlla ne wala yaxaafuuna fillaahi kon yàlla dafay fiir yàlla mooy jaam bi def lu li yàlla xaraamal fa yàlla li gën a fiiree xadis bee nee na beneen mooy jaam bi di njaan wal xayratu bi fatin ayni wa asluha ci saana mooy al bañ bañ toroxtaane ci la jógee hmm. yàlla daal dafay mere di mbugal kuy def lu mu xaraamal loolu la firi hmm. yàlla fiiraange moom mooy boo defee lu mu xaraamal mu mere la mbugal la loolu rek la dégg nga hmm. Hmm? waaw kon na ngeen jéem a tàggat seen bopp ba yu suufi yi bu leen ko def xataa bu ko jamono aayalul waaye seen diine aayal na ko baleen ko waaye tamit bu leen ànd ak kenn ci def yu suufee ndax jamono aayalul ko déedéet lépp lu diine aayal bu leen nangu ku leen ko def bu leen nangu ko jëflante yéen parce yàllaa ko aay de waaye lépp loo xam ne diine da ko aay bu leen ko nangoo jëflante kenn même bu ko jamono aayalul même bu ko jamono rafetloo même ñàkk koo jëf sax bu ko jamono ñaawloo nañ la nañ la xas waaye bu ko def su ngeen bëgg mucc ñu ngeen def hmm? mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiisu juróom-benneel bi te mooy juróom-benn fukk ak juróomeel ñu ngi ko jëlee ci Abu Hurayrata radiyallaahu yàlla na gërëm Allah laanu ci moom andoon ne moom sama dégg na annabi yonent bi sallallahu alayhi wax Abu Hurayrata na yonent bi mu ngay wax xadiis bii ne lay jàngal ne ci boppam parfois amul saa su nekk moom moo lay sant moo lay natt bul gis keneen gisal ne natt bi ci yàlla la jugee pour xool yow yaay kan léeg-léeg yàlla sant la julli waxtu julli jot mu teg fu maxi bu la neex ci télé ba maxi bu ku dogal mu am waaw ah, yàlla kon daf lay natt ba xam da ngay julli jëm da ngay seetaan maxi ba wala sa waxtu julli jot fekk ab làmba ngay am ba waxtu bi di jot rek sa mbër mi nga gën a fonk commencé lewaatu yàllaa ngi xool da ngay julli ji wala nga fay nekk di seetaani ay dóorante léegi-léegi yàlla teg la siraatal mustaqim ngay juba lool di wax lu baax def lu baax mu nattu benn kilifa mu ñëw jox la benn kër wala ab oto wala enveloppe bu mag aywa ne la waxal lu bon ba xam nooy def danga ci encouragé da ngay wàcc sa yoon wala da ngay continuer ci da nekkoon bàyyi kilifa gi àllam nga loolu yëpp nattu yàlla waaw léeg-léeg yàlla wax loola lu baax yebal benn band ne ko tëkku ko mu xool band bi tëkk la rek nga daw waaye man ñëwetuma wax kat parce que nangam a wóorul wallaay boo juboon band bi mënul la dara parce que moom yàlla koy def loolu lu ko yàlla def loolu ci yow mënul nekk fii tamit dafa am ñetti nit yu yàlla nattoon ci banu Israël teggil leen natt bi après ñëw examen leen ba xam dañu sant yàlla wala duñ sant yàlla mooy an abi hurayra jël nañ ci abu hurayra andoo ne moom radiyallaahu anhu ko yàgg andoo ne moom sama dégg naa nabi yonent bi sallallahu alayhi mu wax abu hurayra neen dégg na yonent bi mu naan inna salaasatan naka ñett min bani israil ci waa banu israil abras mooy ku yore jàngoro baras mooy ko xam yaram bi dafa weex tal noonu lay baras di def yaram wa aqra ak leel bopp mooy koo xam ne bopp bi amul karaw wa ama ak gumba araada bëgg na allahu yàlla an yabtaliyahum mu nattu leen dafa am ñett ci banu la yàlla bëgg leen nattu mooy kan kenn kii dafa yore jàngoroy baras yaram bi weex tàll kenn ki lel bopp bi amut karaw kenn ki gumba yàlla bëgg leen nattu fa baasa mu yónni ileem ñoom si moom malakan malaka yàlla xebal ci ñoom benn malaaka gis nga faataa malaaka bi dikkal al abras moo tax maa leen léeg-léeg gis nit fekk xamu nit lam dee leen teej faata malaaka bi dikkal ala barasa kuy la jàngoro baras fa qaala mu ne ko ayu shay'in ban mbir ahabu moo gën a sopp ilayka jëm ci yow loo gën a bëgg xaala ku yore jàngoro baras bi ne ko law nun couleur xasanun bu rafet wa jildun ak der xasanun bu rafet man de dama bëgg yore couleur bu rafet ak der bu rafet waaye sax mu dem an nii ci man alladi li nga xam ne xat xasara nii seexloo na ma ko annaasu nit ñi li tax nit ñi seexlu ma laa bëgg mu dem mooy jàngoro baras ci mooy yore couleur bu rafet ak der bu rafet fa masaxu malaaka bi raay ko fa zahaba mu dem anu ci moom xasarahu tilim tilimam malaaka bi daf ko waraay tilim nga dem wontee ñu jox ko law nan kulóor xasanan bu rafet da ko waraay rek la salte salte bi nekkoon ci moom yëpp mooy baraf bi daal di dañ yàlla jox ko kulóor bu rafet ndax malaaka la qaala bi ne ko fayul maali ban alal ahabu moo gën a sopp ilayka jëm ci yow qaala mu ne alibulu gërëm aw qaala wala dafa war a nag ku sikk kan la yonent bi déedéet fu ngeen fekk lu mel nii rek du yonantu moo sikk sakk sikk na arraawi aji nettali xadis bi ki nettali xadis bi moo sikk dafa xamul diggante ku leel ki ak ku yore baraf ki kan moo ci laaj gëlëm ak kan moo ci laaj nag waaye kenn ki gëlëm la laaj kenn ki nag la laaj foo mu tee ñu jox ko naaqatan gëlëm onchara bu ëmb bu am fukki weer ñu ne mooy bu amee bu xasee am fukki weer ba mu amee doom rek onchara lañ koy tuddee ñu jox ko gëlëm goo xam ni فقال ملاك بنك كبارك يان لا بركة الله ولا لك نيال فيها تي جرم بي يان لا شيال دفال بارك موتا على الجو بارك يا رجل جور لونه بين جرم لا أمون وهي مجنة دم بام خرب جرم فأتى ملاك بديك الأقرع كل ألكا فقال منك أي شيء بن بير أحب موغن صوف إليك جمشيو لو غن بغ فقال من شعر كرو حسن برفت وإذا بمدم عني صارما هذا الذي للغيغا خمنا قذرني سيخ لونمكو xasirani seexloo na ma ko annaasu nit ñi li ma nit ñi seexloo mooy ñàkk karaw gi la ma ne ñëpp bañee sibbee ma ko loolu laa bëgg mu dem maam karaw gu rafet fa ma saxaw mu raay ko rek fa saxaba mu demaanu ci moom ko defee euh, leel gi dañ mu am karaw gu rafet wontee ñu jox ko saaran karaw xasanan bu rafet qaala malaaka bi ne ko fa ayul maali ban alal ahabu moo gën a sopp ilayka yim sew qaala mu ne albaqaru nag alal joogu ne bëgg mu ne nag foo wontee ban alal nga gën a bëgg mu ne nag ñu jox ko nag bu ëmb ku nekk dañ laa jox bu ëmb hmm. wa qaala mu ne baaraka yàlla na barke allah lakk ñeel la fiha ci moom malaaka bi ne na yàlla defal la ci barke kon na nag kii am gëlëm faataa bi di ko rahma bi fa mu ne gumba bi ayu shay'in ban gën a sopp ilayka jëm ci yow malaaka bi si gumba bi ne ko loo gën a bëgg qaala mu ne an yarudda mu delloo allahu yàlla ilayya jëm ci man basar nii sama gis foofu si ma gis annaasa nit ma ne li ma gën a bëgg moo yàlla delloo ma sama gis gi gumba gi dañ ma mën a gis nit ñi fa ma saxawu malaaka bi raay ko amaana ci bët bi la ko raay kee tamit ci bopp bi lay raay keneen ki yaram bi lay raay fa ma saxawu malaaka bi ko faradda mu delloo allahu yàlla ilay jun si ko ba ko bi raayee rek yàlla indilaat ko gisam gi ko fa ayul maali ban alal ahabu moo gën a sopp ileeki jëm ci xaala gumba bi ne alxana mu gàtt mu gàtt la jël fonte ñu jox ko saatan gàtt waali leen bi aji jur mën naa firi bu ëmb tamit jox ko gàtt gu ëmb hmm? fantaje mu jur loo xaasa ni ñaar ñii wa walla da mu jur xaasa kii maanaam kii amoon nag mooy borom leel bi ak borom baras bi ñu toppatoo seen gërëm gi ba mu jur ay doom ñu mujj am gërëm yu bari wala da mu jurloo doom moom gàttam nga xaaza kii maanaam ku gumba ki moom it toppatoo gàttam nga mujj ay doom ba am doom yu ba am gëlëm yu ba am gàtt yu bëri fa mu nekk li xaaza ñeel borom gëlëm ga waa din xur mi ne ibri ci gëlëm benn gëlëm googu dem na ci ba am xuru gëlëm moo tax barke rek am solo de mbaa xam ngeen loolu jëreen mm-hmm. ko ñaan yàlla benn nag ba mu barkee gis ngeen li mu jur xurëb nag benn gëlëm ba mu barkee gis ngeen li mu jur xurëb gëlëm moo tax boo amoon deux cent deux cent mille mu barke mën na laa jural ay milliards jërë ñaan yàlla barke te barke nag bu ngeen ko bëggee dee ko sàkku dee leen dee leen dee leen dee leen wut barke di jëf di wut ngërmande képp ku ngeen yaakaar ci moom baax loolu lay mayee barke fakaara mu nekk li haada ñeel kii waajun xurmine ibli ci gërëm wala haada ñeel kii waajun xurmine baqar ci nag wala haada ñeel borom gàtt yi waajun xurmine ci gàtt mm-hmm. ku nekk am nga xur léegi nag yàlla teggil na leen nattu bi nekkoon ci ñoom jox leen alal mu ngi ñëw di leen examen nag ba xam dañuy bew wala dañuy sant yàlla su ma innaw topp malaaka ba ab diir ataa dikkal na al abrasa ku yore jàngoro baras ba fii suurati yi ci melow ma waxay at yi ak façon malaaka bi moo ñëw yore jàngoro baras moom it comme ni ko waa yore woon ñëw nag mel comme melokaan bu waa ji melowoon woon wuteewut dara ba xam dana ko yërë moom déet <laughs> di ko yelwaan fa qaala malaaka bi ne ko rajulun góor la miskin bu ñàkk moo tax ma ne leen def leen attention ci ñi ngeen daje malaaka bi ne ko góor gu ñàkk xarin xataa dog na bii ci man ari pexe yi amatuma pexe fii safari sama tukki damay tukki amuma dara fala balaaxa déet xegg lii ñeel ma alyawma tey illaa billahi lu mooy ci yàlla su ma bi ko topp ci yow li ma bëgg daal yàlla laa ci yaakaar ak yow ah moo tax li loolu garaawul yaa yàlla eh, diw ñoo ma mën a dimbale ci lii tey daal yàlla rek ak yow ci ñaar laa mën a jàpp pour yegg malaaka da koy natt rek أسألك من لي نعم بالذي تيال من يقم أعطاك جوحنا اللون كلور الحسن برفت والجلد أقدر الحسن برفت والمال مجوحل على البعير المدي قلم والمال مجوحل على من لي نعم بعير بن قلم جوحنا أتبلغ دنا